bul fàtte ñaari affaire sama waa ji dafa gagné au premier tour cinquante sept ou cinquante huit pour cent cinquante huit pour cent laa la wax de loolu la gagné. ak ñan. cinquante huit pour cent avec la coalition et les sénégalais def ci am des gens qui sont qui ont été des électeurs de Macky Sall qui bokkuñu benn parti sont pas de l'APR ni de l'AFP ni du parti socialiste ni dans une aucune comme parti. ak ñoom a Touré. ku mu munti doon rek. dama lay wax benn affaire ama ne. ak ñoom Amadou Ba non xaar ma wax ak ñoom Matar Cissé. ak ku mu munti oui ma ak ñoom Aly Ngouille Ndiaye. oui je suis d' accord avec tous ces gens là on a gagné cinquante pour cent ñu élire la au premier tour. nga nekk ensemble nga nekk président de la république. li ci duggal Idriss Seck foofu question boobu nga ma posé ou pas. boobu laa la posé woon. dama lay wax d' abord ni sama waa ji mel. quelqu'un qui a gagné aux élections présidentielles au premier tour cinquante pour cent avec sa coalition oui du tout je le dis parce que lui son bulletin de Yaakaar Benno c' est une Oui, c'est pas honteux d'avoir un parti de gagner avec une coalition quand on est en politique. D'accord. mu gagné au premier tour woote dialogue Macky Sall woote dialogue laa la wax et encore malgré il a gagne au premier tour des élections présidentielles il a la majorité à l'Assemblée nationale ñaata député fa nekk les cent trente au moins ou cent trente et un sont dans Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ne. les décision yi muy jël au niveau de la présidence loi bu mu yóbbu dinañ ko voté ba mu saf saf indiwaat ko mu promulgué ko donc majorité bi gouverner ak majorité législative lan moo ci dugal Idrissa Seck. oui mais ça on est en politique Pape Ngagne Idrissa Seck ak Idrissa Seck moi wax dëgg yàlla naw naa ko ci bii action man parce que réew am na fu muy toll on ne gère pas les intérêts. Idriss Seck pouvait dire que je suis un opposant. Depuis combien d'années il est dans l'opposition Pourquoi Il pouvait continuer d'être dans l'opposition radicale. Mais il a d'abord de dire Réumi. Mais d'abord normal. Laisse-moi terminer. Non, laisse-moi terminer. Réew, mënoo jël ñëpp par exemple. politique, déglu ma la, on Par exemple, da ngay tas opposition bi. Opposition bu amul ci réew, ana démocratie. Ma xaar ma wax la, il y a deux positions il n'a pas pris toute opposition def ko ci parti bi ou def ko ci coalition bi il y a toujours qui sont là dans l'opposition am na ci ñoo xam ne sax soxlawu leen koo xam ne des gens qui ne peuvent pas gagner des bureaux de vote là où ils sont investis comme tête de liste des législatives ak yooyu tu ne peux pas gagner ton bureau de vote. muy ma tudd ay tour maa ngi xaar loolu boo ci posé yow yaa jiitu émission bi. xam nga ne man sama lemiñ aimer la façon d'Idrissa Seck man sama xalaatu bopp man nit am na fooy toll bu dee. réew kon ki ngay xas noonu tey bu jëloon décision mais ki ngay xas noonu tey bu jëloon décision bi Idrissa Seck jël nga ànd ak moom. waaw laisse-moi ki ngay wax noonu que Macky Sall soxla laisse-moi terminer vous m'avez posé une question laissez-moi le temps de le répondre politique dafa am bu jotee dañ koy def ba mu saf sap lu mu ci ñu def ko mais su jeetee dañuy tourner page d'abord ne Sénégal. mais boo bëggee prendre tout ta vie di ko politiser et où est le Sénégal nga absenté Sénégal booletoo Sénégal ci sa biir programme yow sa doxalinu bopp rek ak bëgg a jiite rek mooy sa combat et ça veut dire que loolu est-ce que un homme politique c'est ça c'est comme ça qu'il doit se comporter. du tout jusqu'à dàq Aminata Touré. non jël place am jox ko Idrissa Seck. bul nee dàq. jusqu'à dàq. Aminata Touré dàq amu ci maanaam dàq amu ci c'est pas